mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax fi ñu leen daan nuyoo fii ci Leewtoo TV tey nag euh, ñu am beneen numéro comme ni koy defee rek tey ñu ñëw fii ci arène Adrien Senghor arène Adrien Senghor boo ko waxee sa xel dina dem ci bëre simple te bëre semple bu sa xel demee foofu yaakaar naa di nga xalaat cosaan muy séeréer ba muy naar ba muy joola ba muy wolof ba lu mu mënti doon waaye yàgg sans pour que ñu tardé dañu dem directement tey ñu fekk si ku mag di montagne maanaam di tund comme nuñ ko mën a waxee eh, doon lu yaatu ci làmb eh, Maadu Mingane sañ ñëw tey fekk ko mu toog ak Ngose mu Diouf di président des eh, arènes Adrien Senghor di suñu papa di suñu nijaay di suñu lépp xanaa sant bi rek ay problème bi waaye tam mu ngi feggoog Ousmane Seydina Ousmane di sama papa moom itam xam ngeen ne kenn ku ne xam ne Ousmane moom dama leen di màggal Maadu Mingane ñu ngi lay nuyu. Eh, maa ngi leen di fay eh, ak seen tur ak seen santa eh, ak ñi nga àndal équipe bi nga àndal yëpp d'abord nuyu aussi directeur bi ci kaw ba ci suuf bàyyiwuma kenn et nuyu it ñi nga xam ne mooy sama président comme ni nga waxee Ousmane Ngor Semou Diouf mu nekk koo xam ne dafay yàgg ci cosaan kon donc itam comme li nga bugg ci cosaan wala li nga li nga may laaj ci cosaan wala li li nga may laaj ci bore simple parce que comme ni nga waxee bore simple soo ko waxee yaakaar naa fala la cosaan yem cosaanu lambu kon donc soo ñëwee ba fii di ma laaj foofu fi nga xam ne à part dëkk ba fii mooy suñu cosaanu làmbu e, neex na ma lool li nga def sax xamoo ko kon donc soo ñëwee ba fii laaj ma li nga xam ne mooy wallu lambu lépp lu ma ci xam waxuma ne xam naa yëpp mais lu bari xam naa ko ci parce que dama nekk koo xam ne dama bore ba paye bàyyi bore di continuer nekk promoteur di continuer di gëstu lambu fépp fu làmb ne maa ngi fa lépp loo xam ne ci lambu la jaaxal na nit ñu bari ñëw nañ ci man laaj ma ko parce que lu tax dama nekk koo xam ne dama ko dama ko gëstu daal parce que nit ki am na ñoo xam ne itam jaar nañ ci gëstuwuñ ko ah mi man dama ci jaar bu pare continuer gëstu ci continuer aussi di ko dundu di ko dundal aussi kon donc. Euh, ma ñëw directement ci ay question parce que li nga wax rek mooy euh, won nga ñu kan mooy Madou Mingane d'abord hmm, cof nga ci tuuti malgré du ñu bëgg a accentuer ba mu sori euh, dama lay laaj directement kañ nga dugg ci làmb lamb bi ma ci duggee ak léegi soixante seize soixante dix sept mille neuf soixante dix sept laa ci dugg bi ma duggee soixante dix sept it eh, yaakaar naa suñu dëkk ñaari at laa fa bëre ñu yëgal ma ma nekk poids lourd dëkk ba am it six cent boo xam ne maa fa des ci dëkk bu ñuy wax Jilaas falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee falaa cosaanoo nekkoon it eh, dëkk ba comme ni nga njëkkee wax montage laa foofu parce que xëy na yàlla moo tax ñu bugg e xëy na defal defal nu ma leen loo tax ñu topp ma mais bi ma nekkee ci làmbu ba bi may bàyyi ba bi may nekk ci promoteur fépp fu ma xewle ñu fekk ma fa Djilass ak ñi ko wor yëpp euh, kon léegi yow euh, ñaata at nga def ci làmb wala ban année nga bàyyi làmb boo ko defee. Euh, deux mille soixante soixante dix sept ba quatre presque. quatre daal nga bàyyi lamb wala ah, quatre vingt douze laa bàyyi làmb mais bàyyi naa ko mais toujours maa ngi koy gëstu di ma bàyyi bi. mais bàyyiwuma ko. maanaam ca nga bàyyi takk ngemb di bëre ak gars yi. voilà ci laa bàyyi takk ngemb. est-ce que jotoon ngaa ñam bëre dóor. bon non demuma fa agguma fa mais am na ay champion yoo xam ne ñu ngi bëre dóor parce que daan naa leen mbapat ñu doog a dem mais xëy na temps boobu aussi et bëre dóor soo xëyee bi am fi succès pour nga bàyyi ko day jafe loolu itam bokkoon na ci li nga xam ne moo tax demuma bëre dóor. parce que euh, yàlla mayoon na ma succès boo xam ne pour nga bàyyi ko rek dina kii mais nag eh, masala lu ne it am naa ko ci lamb bori sembal vraiment lu ne. parce que comme lan ak lan nag yi wala lan. comme man aussi bi may bëree booyee bu ma samay nawle man maa ci njëkk gañe nag dëkk bu ñuy wax Fadial dëkk bu ñuy wax falaa njëkk a gañe nag kon donc lamb aussi lu ne la la ma may. su dee fi may wax ak yow ci arène bi ni adressé ngoor fii it fii laa njëkk a am drapo drapo bi nekkoon croix rouge booba croix rouge booba Mbaye Senghor moo nekkoon président arène bi kii itam booba moo nekkoon secrétaire général muy Ngor si moom yi nekk président tey croix rouge it temps boobu eh, li ma li tax ma ne lu ne am naa ko moy bi ma gañee croix rouge bi pour ma ñibbi jilaas dañ ma teer woon comme buur Croix-Rouge bi itam bi ma ko amee et eh, am naa ñaari at yoo xam ne comme sama papa sama yaay du ñu fay hôpital loolu moo nekkoon njëriñu Croix-Rouge bi drapeau Croix-Rouge at boobu maa ko njëkk a gagné it Sénégal à part mbër bu ñu waxoon Sambu Ndangaan Sambu Ndangaan moo gagné woon Croix-Rouge tegatuñu ko bu ci man ma teg ko ma jël ko kon Croix-Rouge et sama première drapeau fii arène adressé ngoor gi laa ko njëkk am. ay yéen mbër daan yoo xam ne tey jii ni nga doon nekkoon nekk nañ champion lutte frappe fii. mbër yi ma daanoon te ñu nekkoon ay champion bari woon na parce que maak Moustapha Gueye bi nga xam ne amul ku mu daanul bur nañu mbapat yaraax bur nañu mbapat yaraax à part ça képp kuy mbor bi nga xam ne am nga tur amul ku daanul. ci bure waxuma nag daaw ma woon daanu parce que itam nit ki booy wax it ci télé ngay wax wala rajo waxal li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo la doon seetaan mu ngi fi ñu ngi fi ba tey kon donc mi nag yàlla mayoon na ma itam fulla boo xam ne e même soo ma daanee sax ma yóbbu sa succès parce que dama ko bëggoon dama ko fonkoon ñu fonkal ma ko muy ñi nga xam ne ñooy samay waajur ak ñi nga xam ne ñoo ma doon seetaan ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon sama supporter parce que lamb aussi lépp lu mu am lu tax ma ne lépp lu mu am ci lamb laa ko amee mooy même place bi ma njëkk a liggéey ñu embauché ma benn supporter moo ma ko moo ma gisoon bu ma dey mu yóbbu ma embauché ma kon donc lamb ma dara. waaw même question bi day ñëwaat rek xam nga bëre nga ak ay mbër yoo xam ne siw nañu ci euh, lutte avec frappe ku mel ni Moustapha Guèye mais ci lutte simple aussi yan yan mbër nga bokkaloon génération ñi ngeen doon xëccoo xëccoo bu métti bi muy dëkk ba muy fii. ñun ay Ibou Ndappa Lang góor gi Sarr su simal dem ci yàlla ki nga xam ne mooy Ousmane Gangou ak ñoom Maam Ndour ak Maam Jamman ñoo nekkoon seen raadon ñu man di leen daan ñu di ma daan parce que loolu mooy lambu. parce que du ma wax ne dama leen doon daan rek non non non mais lambu la parce que fekk comme baax nañ ak ñoom Lamine Sali ak jam Diamniadio ak ñoom dem see la Madi Guèye ñooñu eh, ak ñu bari ak góor bu yaar ñoom yëpp bëri nañu ba amul fu ñu bëriwul ak même su dee faajut comme ay badu badu aana ñooñu yëpp bëri nañu kon nag eh, gox boo gis ci dëkk ya amoon naa parce que temps bu sax yaakaar naa taa bu ay mbor gën a bëri temps boobu la mbor gën a bëri mbor yooyu it ba léegi ñu ngi dund ñeneen yi lim mm, kii nañu mais nag vraiment ay mbor lañu woon kaamil soo calculer it sama génération léegi laa génne yaram mais ñoo ma uppoon kii it lépp lu may wax it kii am na lu tax ma bëggoon mu teewe def ko seede mais nag xëy na yàlla moo mayoon kattan boobu mu amoon naa kattan may yàlla may na ma it mu amoon ngembu ngembu boo xam ne lépp loo xalaat ci ngemb wala mag vraiment mu ngi mu ngi doon ànd man mu ngi ma doon ñaanal loolu nag moo ma sooye woon ci samay morom ba léegi. mu mel ni da nga amoon bayre waaw eh, yàlla mayoon na ma loolu. parce que xëy na may yàlla la woon. parce que fàttaliku naa dëkk bu ñuy wax Samba Dia am naa ba drapeau mais bi ma jógee pour pour tous lamb bi dafa tas waa waa lamb ji ñaan ma ne génnal nga ñibi dañ la koy ñaan parce que lamb bi mu ngi bëgg a yàqu man itam ma yóotu dem ñibbi fi ma fi ma daloon kon donc euh, loolu moom bayre bi yàlla mayoon na ma loolu parce que pour man maye yàlla la woon. Euh, sa diggante ak woykat yu lamb yi. bon sama diggante ak woykat yu lamb yi woykat bu siw fii comme ci groupe Khady Diouf yàlla ak man la kooku it yàlla def ñu boole woon mu nekkoon sama jigéen bu baax. ma doon jógee suñu dekk di dem Yërwaago di bëri ji foofu di daaw woon sax di bëri ji amoon benn dekk bu ñuy wax amoon foofu benn seriñ bi ma doon ñaanal su ma toogee bàyyi nawet yooyu di ma doon dem foofu am une semaine di ko beel wala leneen pour it wut li ma indaale parce que mag yi da ci ñun mag yi da nga doon toog ba guddi nga dem fekki leen am li nga eh, jëlee ci ñoom loolu moo taxoon may dem Eh, ma sama xamante Khady juuf ndem si loolu moo ko indi woon à part ça itam sama woykat yi am na teranga bu mu bari yoo xam ne dugg na suñu diggante parce que bu ñu ñëwee fii ba Khady Diouf bu mu ñëwee fii ba bu muy dem sama kër lañ doon dal fii Garaayof. waaw ci Khady Diouf ba léegi euh, dégg naa woyam tuuti am lu mu ci wax. Hmm? maa du mbingan jomalanbuwa ah, jila salaye jambar fop ma noon mooy Khady Diouf e maɗum wigan jom allah mo mu mum najilas te asan wagu beska moyi man sama bopp sama papa dafa nekkoon mbor nekk tu doon it asan sama papa itam dañu ne dama mënoon bëre mais dañu dañu ne ñi nga xam ne ñoo fekkee carrière am nee na jotuma ko moo tax ñu ne e, bëre laa donnu ci yaay ci papa kon donc su ma bëréwul mbor laa su ma bëree mbor laa moo waral woy yooyu woy yooyu itam bëri na lool bëri liñ ma woyal ci ci ay làmb eh, su ma ko toppee sax mën nañ fanaan fii parce que sama première woy sama yaay moo ko fente woon jox ko jéeg jéeg yi nga xam ne ñoo doon woy lambu jilaas parce que temps boobu amuñu woon di jël ay woykat dëkk ba ay dëkk ñoo doon woyal seen bopp kon donc mbër it lu tax def ko fente ba pare dal di ko jox ñi nga xam ne ñoo doon woy ñu dem ci arène eh, arène ba ci penju ba di ma ko woy kon donc euh, seetaanul it sama làmb parce que daane taa ci ñun mbor mboru dëkk yaay bi ko jur du ko seetaan soo ngemboo ba pare yaay bi foofu lay dëkk nekk ci kër ga et eh, toog ak xaritam yi ñu ñu toog foofu et eh, di def seen cosaan bëri naa ba bàyyi sama yaay mosul teg bët sama ngemb kon donc euh, woyi nga xam ne moom lañ ma woyal nii ci lamb yi comme li ma wala barke dembu xam nga léegi da ngay seet nit rek mu am xaalis nga woy ko mais bu njëkk woyul lamb bu njëkk kenn daawu ko woon a woyal koo xam ne du du du bërekat du du mbor jàmbaar lañ doon woy euh, Madou ñu ñëw ci lamb tey daan ngeen bëre gis nga na mu daan demee ak ling nga fi lim yëpp ñu ñëw actuellement léegi Adrien Senghor nga gis nu muy demee nee nga mbër yi bëri woon nañ bu njëkk fii dañuy ñëw inscrire ba soixante et quelque dem ba cent ça dépend ci nombre bi nga gis mbër yi naka la ñuy bëree naka la ñuy defee seen problème mu gàllaaj ak ñoomin seen ci wàllu cumikaay yi ndax lañu daan def ba njëkk ñoo ngi koy def ba léegi nañu daan sampe mbër ndax noonu la ñuy def ba léegi wala est-ce que am na différence. am na différence xam nga lu tax am na différence ci ñun soo jëloon drapeau fekkoon ma may la jël nga jël ko soo demee waa seen waa dëkk duñ la teeru parce que dañu li ah drapeau bi ñu la may jarul tiitar moo tax man mii wax ak yow bëri naa ba bàyyi mosuma may benn mbor jëlle bëri naa ba bàyyi kenn mosuma may jëlle boy bo mayante mayante nii parce que xam nga lu tax mbor lu tax eh, dafa war a bàyyi mayante muy tey lamb yi su su ubbee su tëjee dañu ku ne day dem ci noor bi ci nawet bi di samp sa bopp soo sampee sa tey nga dem war a bore ji xam nga da dem ci ay mag yi ay sëriñ yi di ñaan mu ne samp naa la dootoo daanu wala soo daanoo it sa jël yi du bari mais soo demee may la liñ la sampoon toj na moo taxoon ñu doon bañ mayande man mi bëri naa ba bàyyi mosuma mayante kenn mosu ñi nga xam ne ñoo ma mag mosuñu ñi ma seetaan démb ak tey kenn mosul teg bot fi ma mayante jëlle mosul am suñu doon bëree nga nga daan ma fukki jël sax terewul ma préparé pour feeyu mosuma maye parce la wolu fi nga xam ne foofu laa dëkk dañu fonkoon cosaan mais soo demee ba foofu waa dëkk non ñemewoo ko sax parce que waa dëkk ba mënuñ laa samp di la encadré di ka di di di la samb nga ñëw ba ci biir arène adressé nga wala nga dem ci beneen lamb di maye sa morom loolu ragal la lañ ko defoon ñun. kon boo gisee xel yi di maye fii nan lay def ci yow. muy miti man sama rafet rafetul ci man te ma ko rafetluwul parce que promoteur bi xamoo naka la def bi am lu mu tega xaw ma def ko lebi wala def koy kii nga ñëw ba fii di di may sa morom mais moomoo ko moomoo lamb ji ba di ko maye kon mayente dama ko contre parce que dama fekk respecté woo say waa dëkk yi nga xam ne ñoo ñoo dag billet parce que benn amateur bëggul dag billet te te soo gisee amateur dag billet kay bëre bi moo tax kon donc euh, su ma gisee ay mbër yu mayante bi man duma ma ci mën dara mais daf ma jaaxal te di may miti aussi. Euh, Madou Mbingane promoteur nga comme ni ko Ndeye Coumba waxee léegi euh, nga gëj tëgg. war ngaa tëgg wala fan nga ci toll. waaw eh, war naa tëgg. année bi passé dafa tombe woon eh, mu sama journée yi tombé woon nag drapeau chef de l'État te itam e comme chef de l'État ñun yëpp a ko bokk ma bàyyi ko booba itam comme nii mais su ci yàlla andee journée bi le 28 avril bi ci laa bugg a tëgg su ci yàlla andee kooku moom pare naa ko. waaw kon ni ko Aïssa wax comme ni nga wax ni ay patron ne vraiment aussi maa ngi leen di suivre bu baax a baax a baax. jeexale si si si rëg-rëg ndax ku ne lutte simple ne rëg moom noo ko gisee euh, la fekk mu siw nii. voilà et rëg aussi dafa nekk koo xam ne parce que doomi aadama yitam lépp lu ko yàlla may da koy nangu boole nañu it ba suñu maam maamaat comme yàlla may bum mu ko may. ci lamb simple wax dëgg yàlla mosuma ko gis mbor bu ko def ñetti at ñeenti at bu fekkoon ne parce que amoon na temps da nga doon te àll ba fii nga tere fii mais àll ba ak fii la yemale fépp mu dem vraiment yàlla may na ko ndam yooyu loolu itam li ma mën a wax même parce que nit ki même soo ko supporté wul wala loo soo ko bëggul sax waxal li nga xam ne moom la ko yàlla jox yàlla may na ko loo xam ne bariwul mbor buñ ko may mbor bu ko am no bariwul li ma gis li ma fàttaliku ci ay làmb ak cosaan man mosuma ko def de da nga doon neexle fi àll ba ngaa teyle boobu mais neexle àll ba neexle fi ñaari at ñetti at jafe na may yàlla la nag loo gis rek may yàlla la waaw. Euh, lan lan ngay tàggatoo. Hmm? waa li ma mën a tàggatoo daal mooy aussi gërëm leen sant leen ñaanal leen e, rajo bi télé bi ak yooyu yalla yalla mu dem kanam deuxième mois itam gis naa seen liggéey ci bore seen liggéey ci cosaan bi seen liggéey ci lamb ji seen liggéey ci lamb ji man de dama ko rafetlu ma toog suba teel wala e, ay guddi te taaluma seetaan leen kon donc li ma leen mën a wax daal mooy yéen a xam li ngeen bugg yàlla yàlla defal leen ko am ak ak sutura ak teraanga ngeen wér wérle kontaan naa vraiment massa la kon fogole lewto tv tegene meki gar yo xane na aren adiyan sengor yono fo cameraman en intere fa yag waye tam ndey kumba fall refa ci gen nokin fo ano fa aisha fall fo chauffeur aisha fay nday kam euh, dala rek la ya fall nday kumba fall fa aisha fay xa ef xadako ha ah, kon fogole nun xotin menen adiyan sengor euh, fas nañ ko yene di ko defé ni a chaque fois setil mbeur muy ancien gloire muy mbër bi bëre muy promoteur muy amateur lépp jëmale ko ci Leewtoo TV jaa jëf ba beneen yoon.